yasalunaka anil mahidi qul huwa aza fa'tazilu nisa fil mahidi muy nag uh, aaya boo xamante ni uh, mooy aayab ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ci suratu baqara xam nga ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam bii bokk na ci laaj yi yaatu yu baree bari yi nga xamante ni daan nañ ñëw di ko laaj ndax mboolem ñi nga xamante ni Euh, dund nañ jamonoom te gëm ko xamoon nañu xam gu wér cëng ni xéewalu xeet wi mooy yenant bi alayhi salaatu wasalaam ndax yàlla dani laqad man allahu ala al muminin ba baasa fihim rasulan minhum ba sax lépp lu leen mas a jaaxal ci seen wàllu dund seen biir néegi sëy ak lépp dañuy ñëw laaj ko ko yàlla borom bi subhaanahu wa taala ah, yenent bi du docteur du ab euh, médecin du ab technicien waaye képp koo xamante ni yaa ngi gëstu la ngay gëstu boo demee ba nekk ca spécialisé am ca xam-xam bu bari xamal ni ka tëral loolu mooy ki nga xamante ni moo yónni yonent bi alayhi salaatu salaam te moo koy dee kon mu nekk ay gindiku yu leer a leer aaya bi nag mënuñu ko tas lépp lépp waaye waa ndax njariñ yi ci nekk ak xam-xam yi waaye nag dañ ciy jël benn waxtaan rek indil leen ko tey mooy l'aménorrhée l'aménorrhée c'est l'absence des règles vraiment il y a deux types de d'aménorrhée il y a primaire donc euh, vraiment qui se définit par l'absence des, euh, des, règles, c'est une femme ou, ou, bien une adolescence n'ayant jamais eu les règles. Nous wax l'aménorrhée primaire. bu njëkk bi sax euh, il faudrait une euh, faire une distinction entre l'aménorrhée primaire et le retard pubertaire. loolu dinañ ci ñëw ci biir waxtaan wi su ko defee nag aménorrhée mooy lan mooy koo xam ni say règle dafa dagg mënatoo koo gis xam nga ni jigéen ñi li ci ëpp. seen règle dafa am problème day avancé wala muy arrière wala muy ñëw def ay donj wala muy metti wala mu ànd ak xet wala nga jékki-jékki gisatuloo ko loolu mooy aménorrhée tey ci waxtaan wi loolu la ñu bëgg ñëw ak yéen dans un instant. comme ni ñu ko waxee sànq euh, alquran ay njëriñam euh, du jeex. Euh, euh, kon nag euh, ñu ñëw ak ci ni ñu ko waxee sànq rek l'aménorrhée secondaire donc c'est l'absence des règles euh, vraiment chez une femme ayant déjà vu les règles muy ki nga xam ni bu njëkk bi mooy ki nga xam ni musul gis ay règles waaye toll na ci waaye mënu koo gis dëgg-dëgg loolu nekk loo xamante ni retard pubertaire mën na ko waral am na ñoo xamante ni caractère secondaire yi day yéex a ñëw am na koo xamee ni mës na ko gis waaye day jékki-jékki euh, affaire bi dog mu toog ay mois yu bari gisatu ko loolu nag tey jii ci la ñu bëgg a ñëw ak yéen euh, defal leen ci waxtaan wu yaatoo yaatu waaye balaa loolu dëgg-dëgg gis nga jigéen pour rek condition yu dafa am condition yoo xamante ne mooy condition yu nécessaire pour euh, muy man di gis ay réglam waxtu wu nekk bi ci jiitu mooy yii dafa war a mucc ayib muy muy vagin bi muy li nga xam te ne mooy naq bi ak la nga xam ni moom la fa yàlla bind muy way yàlla bi lépp dafa nekk loo xamante ni euh, dafa war a mucc ci feebar beneen bi ci des mooy utérus bi mooy bututi njur gi dafa war a mucc ci feebar waaye ovaire yi dafa war a mucc ci feebar ovaire yi mooy nen yi ah, nen yi nga xamante ni ñooy produire euh, kii bi euh, dëgg-dëgg dañoo war a mucc ñoom itam ci ci ci ci ay xeeti feebar comme nin ko waxee sànq waaye itam dafay aje tamit ci bopp bi loolu yëpp bu ñu duggee ci waxtaan wi dana dana leer yow mi nga xam ne yaay am jafe-jafe yu metti yow mi nga xam ne yaay am jafe mënatoo gis say règle wala mu ànd ak xet euh, loolu euh, dëgg-dëgg am na yoo xam ne ci bopp bi lay jóge ci hypothalamus bi ba ci hypophyse bi bu fekkente ni du euh, ñu répondre ci euh, stimulation bi wala stimulation hormonale bi normalul loolu yëpp tey di nga ci am ay euh, gindeeku tey nag ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy consultation bi bu fekkente ne nit ki dafa am jafe-jafe jooju li ñuy njëkk a xool ñun mooy xool poids am ak indice de masse corporelle bi ndax bu fekkee nit ki dafa xiiboon aussi ñi nga xam ne dañoo xiiboon juddoowaale ko wala ñu màgg feebar yenn feebar yi dina ñëw détails yi ci biir Euh, boobaa dëgg-dëgg euh, nit ki pour mu euh, ay réglam normal day jafe waaye itam absence des grande mamelles am na jigéen ñoo xamante ni yàllaa leen bindee noonu amuñu ween euh, dëgg-dëgg dafa seen ween développé wul dafa tuuti su ko defee nag boobaa ñu tam mën nañuy euh, am aménorrhée boobu nga xam ni mooy ñàkk a gis ay règles parce que yëpp ay mécanisme la yu nekk ci biir yaram bi loolu ci consultation bi day dugg waaye absence de la pilosité loolu yëpp dañu koy xool muy karaw yi nga xam ni dina dikkal doomu adama legle mu nekk si poqataan wala mu nekk feneen ci yaram bi loolu yëpp ci la bokk su fekkente ni nit ki amu ko loolu it day tegtal ni am na lu retardé ci yaramam ba ba loolu mën na téye règle waaye li nga xamante ne moom mooy âge de la puberté et de la ménage donc c'est la maire ou bien les sœurs ndax y a des pathologies familiales am na ñoo xamante dañuy xool sax ba xool waxtu wa nga xam ni moom la ay ay magam wala ay yaayam daan euh, gis euh, seeni règle parce que dafa am famille yoo xamante ni rek ñoom ñoo yaroo loolu euh, feebar yooyu léegi nag feebar yi nga xamante ni dafay indi ba tey li nga xam ni moom mooy ñàkk a gis say règle feebar yooyu bokk na ci Euh, euh, li nga xam ni moom mooy euh, goitre gis nga ko nii goitre thyroïdien kon nag mu nekk feebar boo xamante ni bu ko nit ki amee feebaru boli la goitre su ko nit ki amee mën na téye ay régalam loolu mu xam ko bu baax a baax waaye ba tey bokk na yi ci itam li nga xam ni mooy tuberculose waaw nga ko tuberculose tamit feebaru xëtër la bu fekkee nit ki mës na ko am wala mu am ko loolu bokk na ci li nga xam te ne mën na téye ay réglam waaye ba tey ñi nga xam ne dañuy faju yenn feebar yi feebar yi euh, li mel ni chimiothérapie gis nga ko nii euh, dafa nekk loo xamante ni dëgg-dëgg mën na téye ba tey euh, li nga xam ni moom mooy ay règle mën na nekk tamit retard hormonal wala sécrétion hormonale boo xamante ni dafa am dysfonctionnement euh, ci complexe yi mboolem hormones yi nga xamante ni rek ñoom ñoo euh, mën a yemb ngir mën a nit ki di mën a gis régalam ci waxtu wi mu koy gisee muy mën a dem tamit ci waxtu wi mu koy gisee ci anam bi mu muccee ayib loolu dafa am hormone yoo xamante ni complexe boobu euh, bu ñu ko doon wax fii dafay gudd mais mën na ko tënk rek man maa ko tënk tuddee ko EFL e yii ay hormones la yoo xamante ni dëgg-dëgg mënta ñàkk ci nit ki seen sécrétion normal wala mu nekk lu anormal pour nit ki mën a gis régalam ci na mu mën a muccee ay muy li nga xamante ni moom la ñuy wax estradiol euh, bu dee F bi mooy FSH donc ay sigle la yoo xam ne c'est en anglais waaye euh, am na hélas euh, am na tamit prolactine li nga xam ni itam moom la ñuy wax progestérone ak testostérone ak tamit ci thyroïdostimulines yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni dëgg-dëgg. Euh, yu ñu war a xam la waaye tamit bokk na ba tey ci feebar bi nga xamante ni euh, dëgg-dëgg day tax nit ki du gis ay reglam muy euh, ovaire polycystique gis nga ko nii kii nen bi dafa normalul waaw nen yi dafa normalul li nga xam ni moom mooy jur jur nen yi dafa am ay kyste yu sax foofu moom ngay gis nii ci image bi ñu di la ko wan yii yëpp bu ko nit ki amee vraiment dafay nekk loo xamante ni dëgg-dëgg mm, dafay téye ay reglam am na nag ñoo xamante ne jaar nañ fi suñu borom defal leen tawféex ñu faj leen ba nga xamante ne seen euh, kyste yooyu dafay euh, daal di euh, seey benn yoon am na pseudo herme aphrodisme loolu mooy nit ki nga xamante ne du du du du jigéen exactement yàlla mooy bindee noonu am na ñoo xamante ne dañoo gulli gaana comme olof ni mu koy waxee du ñu ay jigéen boo leen xoolee dangay ngay gis comme ay góor yàlla mooy bindee noonu ñooñu it dëgg-dëgg gis seen règle day xaw a euh, day xaw a day xaw a jafe ci ñoom beneen bi ci de tamit mooy détresse psychologique kon nag euh, nit ki Euh, jafe-jafe bu muy dund ci moment bu xamante ne moment bu tar la wala muy dund ay maltraitance ci biir sëyam wala muy dund euh, ay jafe-jafe yoo xamante ne yu tar la daal loolu yëpp dafay bokk ci li nga xamante ne dafay atteindre retentir ci euh, menstruation bi maanaam ni nit ki war a gisee ay réglam kon gis ngeen ni aaya boobu sànq yasalunaka anil mahidi qul huwa aza fatazilu nisa fil mahidi mu nekk aaya boo xamante ne ci ay règle lay wax jigéen ni muy gisee règle ci ci ñu ñëwoon di ko laaj yonent bi alayhi salaatu salaam kon nga gis ni alquran lu yaatoo yaatu la euh, mënee su ko fee détaillé xëj na dinañ ñëwaat ci yeneen ak yeneen yeneen i waxtaan waaye tamit utilisation bi nga xamante ni moom la ñuy utiliser antidépresseurs yi euh, mën na tardé euh, li nga xam ni moom mooy dëgg-dëgg gis règle yi kon garab yu bari baaxul hmm, rawatina garab bopp yi hmm, yi ngay utiliser pour nelaw yi ngay utiliser pour anti stress yooyu yëpp dafa nekk garab yoo xam ni mën na téye règle yi waaye ba tey malnutrition mooy dund gi. ni ñuy dundee ba tey euh, nit kii dafay war di lekk lu baax euh, waaye bu fekkente ne yaroo nañu foo xamante ni rek ay conditions yu doy waar la ci tumuraanke moo tax yàlla fonk lool da nga dégg mu ne kalla bal laa tukrimuuna al yatim wala taxudduuna ala taamil miskin dee leen dimbalante ci joxe ñam gis nga ko nii Euh, dëgg-dëgg am na condition yoo xam ne su ci nit ki màggee dëgg-dëgg pour mu euh, développer wu normal dafay euh, jafe léegi nag mu am conseil boo xam te ni moom la ñuy tëjee waxtaan wi ndax dëgg-dëgg jigéen ñi léegi fi mu toll nii da ngay romb jigéen sax doo xam ndax góor la wala wala jigéen la vraiment da nga leen di romb ñu sol ay kiloot di daw di def dafa am yoo xamante ni c'est prouvé scientifiquement que ni nit yàlla bindeewu ko jigéen gis nga pour cent des athlètes de haut niveau dañuy am problème mu règle loolu moom ay gëstu yu leer la. waaw yàlla di tëb di daw di yooyu yëpp yàlla bindeewu ko jigéen kon dafa am mouvement yoo kenn terewu leen sport waaye dafa am mouvement yoo xamante ne vraiment yàlla bindeewu ko jigéen kon 50 pour cent ci jigéen ñi nga xamante ne dañuy def gymnaste wala ñu nekk ay coureur de coureuse de de de fond ah di daw di di entraîner dañuy am problème mu règle règle yi day taxaw kon loolu euh, tant que l' activité sportive est maintenue da ngay am problème boobu kon 50 pour cent des athlètes dañuy dund loolu kon ñu di ko euh, bàyyiloo xel euh, bu baax ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi vraiment dem ba def sa bopp góor nii Euh, lii moom euh, euh, yàlla santaane wu ko kon jigéen ñi nañ gën a wàññi loolu bari na ñi nga xam te ne dañu am ay problème mu loolu moo koy indi vraiment def sa bopp góor di daw di def ay kii yoo xam te ne kenn xamu ko kon nag alaakul kulli xaal sunu diine lim ñu tënk nañ ko doyloo Euh, kon lii lañ leen loon ci waxtaan wi tey képp koo xamante ne am nga jafe-jafe jooju moo xam règle la boo xam ne buy ñëw day metti wala mu taxaw ay mois gisuloo ko wala mu nekk loo xam ne buy ñëw day def ay donj wala day ànd ak xet day xeeñ ba sax boo demee ba set bu sa booy ànd ak sa borom kër mu koy sentir loolu dëgg-dëgg euh, garab yu baax mu ngi fii ci regard 114 ñu indi woon li tey ci aaya boobu di aayab ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar suratu ngir mën ko leeral kon di ñaan ngeen topp ñu te euh, abonné bu baax ci seen bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.